Aysatu Silla war na jàngal ci ayatu surtout inshiqaq faqadal maskur bismillah وأذنت لربها وحقت وإذا العبد مدت وألقت ما فيها وتحلت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألحت ما فيها وتحلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا بصيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما ومن أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو السبورا ويصلي سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يقول بل إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والعمر إذا اتسق لتركبن طبعا طبعا فما لهم لا يؤمنون وإذا خلع عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يبون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فدع الله عزيز صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله خير الجزاء القرآن دي رواتنا ساري وخاني بقنا دي ساري ويونتي بدان وقنا شيبتني هود وأخواته سورة هود تخنا ما بيجاو أكيم بقنا saar yi nga xam ne day fàttali yowmal xiyaam ak la fay xew ak ni àdduna tukkee ak yépp di doy na ci waar rek boo xamante ni bi kenn ku ne jox nañ ci sa téere jëpp nga nungoo ci sa loxol ndijoor booy wëlbatikuwaat delluwaat ci say ñoom da bég waaye koo xayiti ni jox nañ la sa téere jëpp bu ñu nattee peesee jëf yëpp ba joxee ni ñu koy àtte ci tribunal bi ban la jëy sa téere jëf ni la lii nga jëf nga nungoo sa càmmoñ bu boobaa càmmoñ bi dañuy xar loxo bi jaare ko ci dënd bi mu nungoo ci ginnaaw wara azahri bi mm. kooku nag la ci mujj mooy tuskari su bóoraa mm. te foo mu mujj way salla saira yanoon ci yàlla musal mm. euh, lañ koy séndal wala fañ koy tàbbal mooy sair yanoon ci yàlla saar yi bokk na ci ah, saar yi yonent wax ni moo ma tax a bejjaaw ndax dafa doy waar yanoon ci yàlla musal te teg na rek siraatu mustaqim ku xam dëgg-dëgg li muy wax doo sàggane jaamu yàlla hmm. doo faye jaamu yàlla sa lépp ci jaamu yàlla nga ko jëb jëbale ñan ci yàlla dimbali bayaan bi li ci jiitu mooy benn mulaaxasa seetlu boo xam ñépp a ko def ci xeeti jàng jàng bi niveau bi ni mu wàccee ci xele yi ci arabe bi ci italien bi ci français bi gis nañ ni man ci man li ma seetlu rek xale yi nga xam ne dañuy jóge doog ko jóge Sénégal bu ñu ñëw nga xam ni mokkal nañ alxuraan macha allah weer yi soog a bu ñuy soog a ñëw dañuy man a mokkal waaye bu ñu fi amee diir damay gis ni dañuy pour nga mokkal leen benn benn leçon rek day jafe te loolu man mu laaxasa bi ma seetlu mooy li ko war a mooy téléphone te nañu bàyyi xel ni sëñ Tuubaa bi muy santaane di soññee ci jàng nee na xam-xam waris na ko sàkku ngir bokk na ci benn bi damay tënk jàng xam-xam ngir xam-xam dund ndax xam-xam buñ ko jàngul duutu dund hmm. bokk na ci li tax maqaasid yi nga xam nit ki war na ko bàyyi xel buy jugg ci xam-xam muy ni naa jàng ngir xam-xam bis ko jàngul day faatu hmm. te xam-xam nag bu fekkee ni nit ki du liir wala duutul mokkal xam-xam mi ngi faatu mbokk yi waaw xam-xam ba sëñ Tuubaa jàngale ci tasu di saxaar mooy alxis wa tilaawa mokkal ak di jàng bu yooyu amul rek na leen wóor ni xam-xam a ngi rëcc mbokk yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax gone yi wax dëgg yàlla xam-xam maanaam nañ ko war a téye téyeetuñ ko mokkal amatu fa nungootuñoo lii te ñaar yooyu bu fi amul rek xam-xam a ngi sànq ñépp nag nañ ko bàyyi xel ñépp nañ ko bàyyi xel kon li daay war a sol waajur yi pour tànk yi waxuma jàng gii ñu jàng fii ci daara ji waaye bu ñu jógetee ci jàngukaay ba nga xam ne mën a jàng si wàllu àdduna fay leen téléphone yi bu su ci suba gi nañ am ñetti waxtu wala ñaari waxtu yoo xam ne dañuy topp seen i leçon ngoon gi bu ñu noppaloon nañu am ay jamono yoo xam ne dañuy fay seen téléphone yi topp seen i lu ko may mbokk yi li fi nekk rek xusubul mu sànnada rek lay ne mm. da ngay séen dara defe ne daraa ci biir te dara ni mu loolu mooy li nga xam bi ñëpp seetlu nañ da ngay gis koo xam ne bi ci arab bi dañ ne naan am na bag nangam am na bag nangam tay bu la liré da ngay loxo lay dem gemmiñ tudd andu ko tik wala nga laaj nga bindiloo ko ben insha bu la bindalee rek yow ma koy top da nga mujj tit lak arab kep yo xam ben fara ben jumla bo xam dina complète ñu ci bari mënuñu ko té ko xam dem nañ ba am ba ni amna na bac noonu la ñëwee ci français bi ak italien bi kon nak loolu mat naa bàyyi xel bu baaxa baaxa baax ci eh, xam-xam ni muy sànkoo te dara wëralu ko lu may jumtuwaay yi nga xam ne war a kiy jàng ko ne war nga ko bàyyi xel dañ ko sàggane loolu dañ ko ci andi woon sëñ bi dina ci ñëw léegi beneen bi ci topp mooy li ci bëgg a waxtaane mooy ab tomb la boo xam ne bii lu jar a bàyyi xel la mooy maanaam for àll jàmbur islam da ko tëral amul lenn lu nit di def ab jullit def te islam tëralul la ci yoon ya nga war a ci jaar for doo for rek def ci sa poos déedéet wala boo defee sa poos defal la la ci sa diine sant la la ci sa diine sant mooy yëgle ko yëgle ko bu fekkee ti ni ci marché ba nga ko fore yëgle ko fa bu dee ci daara ji nga ko fore yëgle ko fa bu bu dee lu am ma sax dañ laa wax ne la bu jaree nga def communication communiqué bind ci fay fay ba bu borom feeñee remboursé la lañ ca joxe woon nga yëgle ko soo ko yëglee nag bu dee lu am ma atum la sañ nga koo jëfandikoo sañ nga koo jëfandikoo te boo ko jëfandikoo nga am yene bu borom feñe nga fay ko wala bok nga saraxé ko nga saraxé ko té bu borom feñe bu borom feñe nga ni ko saraxé naa ko yool ba kat bu la soobee nga jël ko féetewoo ko bu la nee nak dang may fay bu boba nga fay ko alalam yow wo yool ba alali jambour kenn du ko fol ni nik ak moom yeen tout temps ki jangi su ngeen foré dara ci école bi wala car bi wala fu ngeen ak seen morom yeglé na kenn réelewul dara kenn réelewul dara bu kenn néewul maa ko moom sañ nga koo jëfandikoo te am yéene bu borom feeñee nga fay ko alal di su ko for jëfandikoo ko te dëppoo ca la sa diine wax ni la noonu ko jëfandikoo kon euh, ci tënk euh, bayaan bi. waaw jërëjëf ñu ngi xam naa euh, ci digga comportement bi rek dafa lu am solo la ci la wax xale yi waaye nag damay punte nag sa responsabilité surtout na xale yi muy comportement bi comportement bi moo manqué. moo moo bon ñàkkuñu xel de loolu nag waajur yi il faut nga jël responsabilité ndaxte xale bi ndaxte suñu tubaab yi wax rek boo bëggee atteindre sa objectif ci xam-xam da am yaram yar moom la manqué di ko wax moom lay gëstu bi nga ne xale boo xam ne day yor téléphone am ñu koy sonné ci moom pour mu sonné bu dee école mën nay def même petit euh, formation yi def ci ci ci ci yi sax problème boobu na ci dañ am xale yu góor yi ci am problème jigéen ñoo tane résultat bi ñu am ci jigéen ñi am ko ci góor yi yaakaar naa waxtaan nañu lu may waxtaan ak ñoom ci loolu waaye waajur yi gis naa ne du liir këre ji nga ji nga waajur ak doom ak doom waajur bu ragal naqari dara ci xam doom surtout waa nee na na waajur naqari dara du sikk ñàkk yi mooy sikk xale yi bay bay bi dafa ëpp am na xale yu âge boo xam ne gis nga xam ne ñu lay jox téléphone dafa ëpp mm. loolu du ma du ma du ma ëpp di xale du ma xale dara waajur yi laay wax xale bu am 10 ans 12 ans nga bàyyi ko téléphone mu jàngee moom mu ñëw fi ci daara ji fii da ngay nga a da ngay xoolal bi kii lu tax mu jox ko téléphone mais waajur yi la kon niñ jëli soir ñu nit suñu doom la xale yi nii ñàkk am résultat yi du dara yar gi la ñu jëli soir xale yu baax la ndax da ngay sonn ci xale bi école bi école bi bi dama naan xale bi sa waajur ji da koy xoolee boo dee ci professeur bi da ko xoolee loolu bët bët yar xool ko bët waa waajur ki lay jàngal ki lay jàngal li mu mënut a expliqué rek mooy ñàkk yar jikko mhm. boo nga amee nekkul xel am mhm. la ñuy def capot bi bu la yuuxoo ki nga expérimenté nga gis a ah, day dem expliqué kii bi ñu defal trois mois test te dara mooy ñàkk yar gi am la doom ji da xale yi da leen yuux ci kër gi ñuy muñ bu nee ci détails yi yuuxu bu demee ci professeurs yi fii xale yi gis ñi am am nañ xel de mais bu demee ci bu demee ci école yi lycée yi université yi li tax ñu leen di orienté leen yóbbu ci biir secteurs yenn secteurs yi dañuy xool ne seen avion yi duñ ko jox ko amu yar seen laboratoire du duñ ko am yar li xew Sénégal benn hôpital ku dugal ci nit mu muy rey du os bébé ña ko jàng dañoo ña ko bàyyi di nga bu amee comportement bu baax lu ne mën nga seen comportement moo leen yàq lu bare bare bare li ci jigéen ñi réussir ku néew amu amu ci góor ñi góor ñi néew dañoo naqaree ma laay bu dee ci bañ dara jigéen li nga a def boo ko defee wallaahi boo ko dumaa sax boo boo demee yaa ngi dundal yaa ngi def yoon bu baax bu raal loolu waaye nag da ngeen da ngeen man loolu lay gën a point daal lu baax nag yooyu moo bàddi moo naxee macha Allah macha Allah cioè nello studio, nello studio a casa, soprattutto perché nell'ultimo periodo si è, si è, avuto un calo non sia qua al Dara, uh mm-hmm. -huh. ma anche a scuola o dovunque. Uh mm-hmm. -huh. Quindi cerchiamo di impegnarci di studiare e lasciare da parte i telefoni. Magari al mattino quando ci svegliamo prendiamo i nostri libri, leggiamo, facciamo i nostri compiti, mm-hmm. perché se noi leggiamo prima o poi impareremo sempre qualcosa, sia dal Corano che sia dall'italiano, sia dal francese, qualsiasi cosa sia, impareremo qualcosa leggendo. Poi lo state ricordati che se magari troviamo qualcosa per terra, in pullman o per strada o i soldi, mm-hmm. non dobbiamo prenderli, ma prima di prenderli chiediamo se è di qualcuno, mm. se non è di nessuno, dopo che non è ha letto di nessuno possiamo metterli in tasca mm. e se poi magari torna a proprietario possiamo ridarglieli mm. o se no possiamo andare a donarli o regalarli a qualcuno mm. Assalamu alaikum Assalamu alaikum